alaykoum man la Adja Fat Badiane présidente des Badiane du district sanitaire de Thiès. Ah, lan mo sabab bésu tey bi. Euh, bésu tay bi liko sabab moy dafa am ben ONG buñu financer financé voix voie essentielle Speak Africa. ben un projet buñu financer financé voix voie essentielle ak euh, Speak Africa. ñu financé Badiane district sanitaire de Thiès pour ñu def plaidoyer sur la tuberculose. pour les femmes affectées et les jeunes filles affectées ou infectées par la tuberculose pour que ces femmes-là et ces filles-là ñoom ñu accéder aux instances de prise de décision ñu def benn plaidoyer boo xam dañ accompagner plaidoyer bi dañ auprès des autorités auprès des maires auprès des préfets médecins chefs de district CDS euh, les maires le conseil départemental toutes les autorités pour que nous xam auprès du ministère de la femme de la famille auprès du développement communautaire auprès de l'AGS pour que nous ñëpp ñu

ñëw fii CDT bi mu faj leen ba ñu wér péng te ñu fay dërëm ñu delluwaat ci seen activité kon ñun jigéen te ku ci faju fukki fan ak juróom yu njëkk yi nga faju normalement jël say garab du towal kenn kon ñoom lu tax ñoom mënuñoo ñëw ànd ak jigéen ñi ñu ànd ci développement bi ànd ci ministère de la femme de la famille ànd ci le développement communautaire ànd ak waa AGC yi ñu àndandoo dugg ci groupement de femmes yi jël seen activité génératrice de revenu di ko def di liggéey di dem ak ñëw comme ñun suñuy teg poste ñu postuler comme ñun ni ñu kon loolu moo tax rek projet bi jóg pour que ces femmes là et ces jeunes filles là ñu bàyyi ci li ñu nekk xam ne feebar la feebar la comme feebar yi yëpp ñu bañ a téye seen bopp bañ a rus bañ a def maladie honteuse du maladie honteuse feebar feebar la. Ah, lii ponk la ci projet bi. maanaam ndoorte la. ndoorte la yan activité ñoo ci tegu. Euh, mooy comme li ma la wax ne activité de plaidoyer pour mu lool ci district sanitaire bi dinañ dajale CDS yi. Hmm. nekk au niveau des six communes. Hmm. district sanitaire de Thiès.

suñuy tabaxal instance boo xam ne jigéen da ciy faluñu convoqué leen ñu bokk ci kon yooyu euh, yooyu activité la ñuy def dinañ ko def ak ñoom jigéen ñi dinañ leen formé dinañ leen dinañ leen gën a former ci seen leadership pour que ñoom ñu gën a xam ne ñoom ay leader lañu comme tout le monde feebar bi leen dal du dara dee wér ñi ci des nag dañuy def plaidoyer auprès des autorités pour que ñoom lépp lu ñuy defati boole ci association des femmes hmm. yooyu nga xam ni dañoo affecté ou infecté par la tuberculose avec euh, programme euh, kii PMT bi gis nañ ni am na régression fii ci euh, district sanitaire bu Thiès mais malgré tout ça feebar baa ngi fi mm-hmm. ngeen jóg nag pour loolu mën a dàkk fii ci district mm-hmm. voilà loolu dañuy jóg nag vraiment pour gën a waxtaan sax ak nit ñi mm-hmm. pour que feebar boobu koo xam ne mi ngi sëqat loo xam ne fukki fan ak juróom am nga ko sa sëqat nga teel la dem seet sa infirmier chef de poste bi gën a jege mu seet la feebar sa xër yëpp du du tuberculose te teel a xam ni sa feebar bi moo la dal nga teel koo faj delluwaat ci société bi am say droit am say àq ak say yelleef moo gën ngay nëbbu feebar te tant que yaa ngi koy nëbbu yaa ngi koy wàll nit nëbb bi moo baaxul bu tant que yaa ngi koy nëbb rek feebar bi day law kon nag dañoo bëgg képp koo xam ne yaa ngi sëqat plus de 15 jours sa sëqat weeru léegi sax mun naa mën noot 15 jours 8 jours sax soo ko sëqatee demal nga dem seeti ba xam moo la dal ñu dépister la seet la boo feebarul ñu fajal la sa nga dem liggéey ndax sëqat yëpp ay wàlle gis ngeen grippe bi ni mu bare sëqët yëppay wàlle waxantuma laa nag tuberculose moo tax tamit dañuy ñaax ñi nga xam ne ñoo yore feebar boobu tamit pour ñu wàññi ko ci district sanitaire de Thiès ñu teel a dem nag saytu ji seen bopp pour que feebar bi bañ a law euh, voilà feebar bi ni muy wàllante mooy da ngay sëqët soo sëqatee tëflit yi nga xam ne day génn sëkk yi da nga koy noyyi soo ko noyyee day ñëw installé wu ci sa poumon léegi nag foofu la feebar biy toog nag pour law ci sa yaram feebar la boo xam ne dañ koy noyyi mooy ñun bi ñuy xeex mooy la tuberculose pulmonaire ñun ci boobu la ñuy liggéey voilà xeex jàngoro bi yomb na parce que soo ko teelee dépister teel koo faj du law mais nag soo ko teelu dépister teeloo koo faj day day kii li tax jafe-jafe bi rek mooy nëbbutu bi moom suñu teelee génn rek ñu teelee ne dépister teelee na faj fukki fan ak juróom ku ko faju dootoo wàll kenn bon asalaamaaleykum maa ngi tudd Adja Roqe Samb Je suis la chef de service départemental de la famille du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants. C'est un honneur et un immense plaisir de participer à ce forum qui, qui marque la participation significative des, des, femmes et des jeunes filles euh, affectées ou infectées par la tuberculose. Euh, une maladie c'est une pathologie boo xamante ni c' est curatif il euh, une pathologie boo xamante ni c' euh, dafa am benn traitement bu curatif boo xamante ni day wér luy wér la maanaam euh, c' est une maladie boo xamante ni wax dëgg yàlla laajul ñuy jigéen ñi walla xale yi mu dal ñuy dund li nga xamante ni mooy discrimination te loolu la ñuy xeex ba tax na bàjjanu gox yi ma leen di remercier bu baax ci initiative bu rafet bii nga xamante ni jël nañ ko ngir accompagner femmes yi nga xamante ni ou bien les jeunes fi yi nga xamante ni euh, dañoo loolu loolu di jàngoro boobu daf leen dal ngir ñu gën a gëm seen bopp am confiance en soi de telle sorte que dinañ mën a surmonter li nga xamante ni mooy seen maladie mën a am euh, benn euh, traitement bu mucc ayib ba nga xamante ni instance de décision yi nga xamante ni dañ leen fay boddi ñu xeex loolu ba tax na ma koy rafetlu bu baax en tant que ama qualité de chef de service départemental de la famille ñëw accompagner les bàjjenu gox ci xeex boobu ñuy xeex ndax pour que ñu wax développement il faut que les populations aient la santé mm-hmm. donc dafa nekk loo xamante ni dañuy demandoo euh, en parallèle kon bu ñu wér ginnaaw wér gi yaram gi ci la ñuy tal développement kon ñu ngi ànd ak ñoom di engagé waat euh, au nom du ministère de la femme di engagé wu waat ak bàjjanu gox di avec bien sûr les acteurs communautaires à ce que ñu xeex li nga stigmatisation boobu nga xamante ne ñoom ñi nga la maladie dal ñu koy jànkonteel ak tamit fexe ba daal euh, feebar boobu ñu xamal leen dan mooy bi xamal également traitement bi li mu yépp ci ay conditions ay critères ba feebar bi dootu ñu ko

bu goudé da ngay am essoufflement manam da ngay da ngay fat en plus da ngay am fièvre te da lay jeexal tàkk te boo ko fajul mën na dem ba yóbbu li nga xamanteni mom moy sa bakkan donc mu nek feebar bu doy war bo xamanteni mi ngi fi ci suñu bir askan mu bari trop té day nek nekk bu y walé aussi euh, mais li ci neex rek moy amna traitement té traitement bi c'est gratuit amul fay amul dara minimum di nga def nak 6 mois parce que centre de traitement bi mi ngi fi au niveau du centre de santé képp koo xamanteni ni defal nañ la à bar maanaam seet nañ na ba gis que ni feebar doomu feebar bi mi ngi si sa si sa yaram dañ lay jël en charge gratuitement doo fay dara ba nga xamanteni di nga wér dellu ci say activité li ci problème rek mooy souvent nit ñi amuñu ñi nga xamante ni da leen dal des fois duñu am patience eggale sen traitement parce que traitement bi lu mu gàtt gàtt dina def 6 mois mais six mois yooyu soo respecté li nga xamante ni moom lañ lay digal di jël say garab normalement da ngay wér donc li nga xamante ni aussi am na ci solo mooy bu ngeen xoolee tuberculose euh, fii lu ci ëpp dañ daan gis relais communautaire yi ñoo koy faral di di di di dem di dugg ci sensi dëkk bi di def sensibilisation di ci yëngu lu mel ni OCB ñi ngi fi mais tey boo gisee bàjjanu gox yi taxaw ñoom ñëpp dugg ci seen loxo c'est parce que dañu nekk ci phase boo xam dañ ko bëgg a éliminer d'ici 2030 kon donc dañ ko war a éliminer fii ak 2030 dafa am solo ñëpp dugal ci seen loxo ñëpp jàpp si parce que dafa nekk feebar boo xam dañ koy wax maladie de la honte maanaam nit ñi buñ ko amee dañuy nëbbatu moo tax feebar bi gaaw fi jug euh, ni ñuy nëbbatu noonu nag rawatina jigéen ñi mi dal dañ leen gaaw a boddi comme ni ko sama naataango bi waxee léegi parce que jigéen dafa ne dafa sensible gaa feebar bi góor lay gën a dal gis nañ ko ni chiffre yi ñu am fii ci biir gis nañ que ni góor ñi lay gën ëpp dal mais jigéen ñi muy dal ñoom lañ ciy gën stigmatiser maanaam ñoom la ñuy gën euh, di leen daw duñ leen jàppale te dafa nekk nit ki dafa am entourage bu nekk ci wetam mu war a am euh, assistance psychologique euh, ñu mën ko psychologiquement ba nga xamante dina affronter feebar bi mën dem def ay traitement correctement suivre ko su ko mu wér mën a delluwaat ci société continuer ay activités normalement parce que tuberculose nekk na feebar boo xam ñëpp la mën a dal ah. amul mag amul ndaw amul nga yor wala nga ñàkk. gaa nag sujet vulnérable yi mooy ñi nga xamante ni dañu gën a euh, maanaam féete dool ñi gën a seen loxo gën a néew doole ñu la gën a faral di yëpp parce que léeg-léeg conditions yi nga xamante ni fa la doomu jàngoro bi di di di di di développé wu si ñooñu lay gën a fekk baax muy li nga xam dañ koy wax promiscuité di nekk dañtalikoo boo xamante ni dañ koy gis si kër yi euh, duñu daf du ñu am yaatuwaay bi ci war di ubbi suñuy fenêtre di aéré di ubbi jant bi di dugg parce que feebar bi lu mu garaaw garaaw moom bëggul li nga xamante ni moom mooy jant naaj. donc te léeg-léeg conditions yooyu nga xamante ni dafay favoriser développement feebar bi day nekk ci ñi nga xamante ni dañoo néew doole. donc ñooñu aussi ñu nekk ñu ñara ñu jara jàppale ñoo xamante ni war nañu am information ñuy communiquer ak ñoom di sensibiliser sensibilisation bi ñëpp la war. muy bàjjanu gox bi muy relais bi muy góor muy jigéen ba nga xamante ni ku nekk boo ci jàppee ñu xam ni feebar la comme yeneen feebar yi nga xamante ni mooy mooy ñuy dal ñu koy faj muy wér lu ci mel ni paludisme wala leneen ak leneen ñu jàppee noonu feebar bi su boobaa dina gën a yomb te dina tax ñi ko am bañ a làqatu parce que làqatu boobu tant que mi ngi am rek feebar bi du fi gaaw a jóg

Mémorandum de l'Association des Badiens du district sanitaire de Thiès pour soutenir les filles et membres affectés ou infectés de la tuberculose. Nous, Association des Badiens du district sanitaire de Thiès, les filles et les femmes affectées ou infectées de la tuberculose des mouvements associatifs réunis ce 9 décembre au centre de santé 10e à Thiès au cours de ce forum communautaire sur la TV. La TB est un problème de santé publique et affecte de plus en plus les groupes vulnérables, enfants, jeunes filles, femmes et personnes handicapées. Ce problème est une occasion et nous, d'échanger et de dialoguer sur les défis de l'ordre 3 et 5 en faveur des femmes et des filles. conscients des engagements pris par nos gouvernements, devant la communauté internationale et le système des Nations Unies pour développer des politiques dynamiques, PSDSS, loi d'orientation, en vue d'atteindre les ODD d'ici 2030. Soucieux des efforts consentis par la tuberculose internationale, les États et les partenaires pour mettre fin à la TB, le Palu et le VIS d'ici 2030 convaincu de la ferme volonté politique du gouvernement et des collectivités territoriales sur la pertinence des orientations du PSE et notamment dans la composante 3 sur l'intérêt qu'il accorde aux capital humain, en particulier sur la santé des jeunes filles et femmes affectées ou infectées par la TB convaincu que les inégalités contribuent aux faibles résultats enregistrés chez les femmes et les filles en matière de santé de la reproduction, y compris le VIH, la santé maternelle et la santé des enfants. Conscient de la pertinence et des résultats attendus sur le programme, l'initiative Voix essentielle qui vise à surmonter les obstacles en aidant. L'organisation de femmes et de filles à participer davantage à l'élaboration des programmes et des politiques de santé publique afin que ceux-ci répondent mieux à leurs besoins. Nous demandons au préfet, aux maires de prendre des mesures administratives pour valoriser le leadership des jeunes filles, des femmes affectées ou infectées par la TB nous vous demandons solennellement de mobiliser des ressources afin de renforcer la prise en charge médicale et le transport des patients, de doter des kits alimentaires et scolaires aux familles vulnérables. Nous demandons également aux préfets, aux sous-préfets et maires du département de Kiev de renforcer la participation active des jeunes filles et des femmes infectées, infectées par la TB dans les consultations citoyennes dans les débats d'orientation budgétaire et surtout dans l'élaboration des plans de santé des collectivités territoriales dans une démarche inclusive. Nous sollicitons l'appui des services techniques, de développement communautaire et district sanitaires pour renforcer la structuration d'associations des jeunes filles, des femmes affectées ou infectées par la TB, pour renforcer leur leadership et leur voix dans les instances de prise de décision. Nous, le corps nous nous engageons à porter ce plaidoyer auprès des maires, des sous-préfets et du préfets du département de Kies, pour que les PTA, des CDS, des postes de santé prennent en compte les préoccupations de ces cibles. Nous marquons toute notre disponibilité pour soutenir ce programme en développant des actions pour le succès du traitement et de combattre la stigmatisation des patients au niveau communautaire. Nous sollicitons, chères autorités, de prendre des mesures administratives pour instituer les statuts d'acteurs communautaires et de mettre en œuvre des stratégies durables pour le valoriser dans le système de santé et jeunes associatifs du district sanitaire de Kiev. Nous nous engageons à nous approprier et à vulgariser cette déclaration dans nos organisations et dans nos communautés de base. Nous, nous engageons à contribuer à la promotion de la santé et le bien-être des jeunes, en particulier les jeunes filles et les femmes infectées ou affectées et personnes handicapées dans les districts sanitaires. Merci pour votre attention.